Seex Bamba sallallahu Muhammadu Seydina Muhammadu Yàlla dolli leeram Soxna Faati Mbakke lanu yaakaar fee fanu jëm Seydina Muhammadu Seex Bamba sallallahu Muhammadu Seydina Muhammadu Yàlla dolli leeram Soxna

soxna Baali Mbàkke mu tedd ma. asalaamaaleykum soxna Astu Mbàkke soxna Astu Baali Gaynde Fatma sa doom ju baax ji moo ñëwati sa doom ji nga xam ne yow rek la bëgg sëñ Xaadim Gey sopp bi sa yitte rek moo yitteem ñun ñii di ay àndandoom di ay bokkam. waaw koku moy khadim Cissé moy commerçant bi nga xam lu bax rek ko ko ñor Daaru Xuddoos sa nek sa kër maam sëñ Modou Moustapha khadim Cissé di ku bëgg khadim ngay sopp nabi and ak mom waaw khadim Cissé Daaru Xuddoos rek la am nak liggéey rek lay def waaw waaw liggéey rek la xam waaw nee nak mi ngi fasante ak yow mi ngi ci Daaru di def lu bax day xatu sopp nabi waaw soxna nday Mbacke ngi ni waaw muy siari soxna nday Mbacke moom sëñ soxna sëñ Fallou Asta Dieye xaarim as gor la soxna ki nekkul waaw sëñ Fallou sëñ xaarim Dieye sopp na bi ñëpp a xam ni yaayam rek la am soxna Astou Gaïndé Fatma balay def lenn mi ngi seedeel ñëpp ni yaa Ndeye Mbacke nii moom sëñ Fallou Asta Dieye nee na moo ko léppal ci soxna Astou mi ndax moo soxna Astou kat noo bokk lépp ba noppi di ay xarit di ay soppee li ngeen gis nag seen xaadim gay mii ne lii lépp yaa nday mbàkke mii la moo ko booleeg soxna astu ndax yaa nday mbàkke mooy soxna astu soxna astu di moom ñu baax lool bëgg lu baax xaadim nag ne ba nga amee la yokku xaadim ne loolu wóor na ay xaritam wóor na ay bokkam wóor na ay soppeem nee na daaw na yóbbu yaayam màkka loolu lim gënoon a bëgg moom xaadim ji sopp na bi lañ koy wooyee Seydina Muhammad la bëgg waaye nee na bala caa dem sax day wan yaayam Seydina Muhammad waaye yaa tax wan na ko yonent bi mais yaa ko digg ay nawleem yaa ko teral ci digg ay nee am na ko te yaa tax mi koy seedal adduna bi yëpp mais bi yaayam a jiitu ni ko sawar naa foofa ajartu yàlla nga delluwaat mag ñun yaa léppal bi mu ñëw nag. خادم سيسمي داي دومي دك بي ليغي رك لا خم يلف لو باري نك دك بي واي بوكو غيسي اب طالب رك لا نيكو سيار بابا غاي سيار رك داما تي ديف سما ادي اندكو اك يا واي دا نوي اند با تي كانم سخنا بالي ما فاسنتل موم كولر خادم ديف نكو ترا nga yaangi ni magam ni ni li taw yaayam eh, di magam gi sos mom rek mu and ak mom mom la jital ay soxnam ñewna wa koñ ba kenn de su ndax kon mom xaadim ba mu ndaw lay jariñ waa koñ ba Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne desaaka mi mu yaakaar maami sañ Basiru Sarr ba muy am desaaka yoonu mu taxawagut soxna nday xaadim ne lépp mi ngi la koy jébbal nga jébbalaate ko soxna si léegi rek dañuy jël kàddu gi jox mataar bu bu noppee ñu teewlu sañ xaadim bu ñëwee ñu déglu nag kàddu yi jóge sañ Fallou Gales daanaka sa diggante xaadim Cheikh wax na ci lu bari li ma gën a bégloo ci nag man saa yu ma lay xool soxna may dara ma rek laay gis sama ju baax ji dani ma ñoo bokk bàyyi waaye sama xarit la wax na ma ba tàyyi lu bari ci yow ak soxna asurakam jee toog waaye bi ma gën a neex mooy soxna may mii doon jébbale léegi yaayam jii toog ak xaadim mii sawet ak ablaay ak bàjjen maa ami mee Mbàkke ñoom ñëpp su ñetti maam yi rekk toppante bokk ndey ak bàyyi taw askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp kon ni nga jàppe ñooñu rek man sedd na sama xol jërëjëf Mbacke xaarim nag daf maa woo léegi ni ma dama bëgg nga yëkkatil ma ay kàddu jëmale ma ko ci soxna Astou Mbacke xaarim nee na soxna Ndeye Mbacke moo ko yëkkati teg ko ci loxo soxna Astou Wolof Njaay day wax ni ragal péete day xañ a wërsëg waaye kon waroon naa wax contraire ba kon ñi ma péete am na lu muy def moom féete gi mu féete ak yow nee na rëcciwu ko benn yoon magam ju góor ji ak magam ju mbokkal ndey ak baay mi ngi ci jotaay bi nee na bëgg nga ko jàppale nga ko yiir nga ko sëñ moom saa sa maam nag newoon na doomu aadama gënawul moroom ji lu tax mu bëgg ko te ko waaye bëgg ki la bëgg yëg nga ko xaalim daa andi lan cinquante paquet ndox nag yi wax ngeen ko léegi na mu ko daan defee la koy defee nag waa nga fee mu yow waaye loolu doyul mu ànd ak ki bokkam ànd waaye ànd ak yaayam ji toog xoolal li mu doon def bu dul woon dëgg ci moom wala neexul ay bokkam yaayam du ñëw yaayam a ngi toog wax nga ko léegi dama ni kuy ànd ak diw ñetti fan niinoo da ngaa jum am ndox nga àndal. Gaynde Fatma sa baay fa mu tegoon tànkam ba léegi ay yëgguñ fa. serigne mon sa baayam bu gagoon kenn du tari bu kenn du réussir soxna amin Tolo mbok ndem serigne bala amin Tolo xëri Mam xëri Mam ak ndak ak Marema ak pelle bu ak mu amit yàlla bokk ndey ak baay yàlla ko jukkumbala sen baay tudde waye nak soxna bali serigne Cheikh Awa Balla bok ndem serigne ak Fadi Awa Balla ak ndek mi ci penc bo Awa Balla ku ñun ñuul Balla ku ma ñuul maam Dieng mbooj maam Dieng mbooj Fadi Balla wax mbooj Balla Birane mam jeng dam sen ba Omarub dam tari sen rek moj bi den na sa mbok la sëriñ Cheikh sa baay bu tari Gaynde Fatma la tudd Soxna Fatma la waayam tudd Gànka la baayam tudd saaxal Soxna Mbaye ko jur mënul saaxal baayam saaxal Fatma ku li kodd ngay naw kodd maajoor maajoor ma xool jukuli maa sama tàkk ma déglu seen ndax ni soxna May ma ca Ndakaaru nga bokkal bàyyi ak soxna Asumee toog loo baax doyul xaarim dafa erreur dafa erreur mooy ànd ak ku jëmul fenn wala topp ku lay sànq ca jànd mat kenn lii li jënti góor laam jigéen soxna Asu kontaan nañ Mbàkke yàlla la yàlla defal jàmm yàlla nga ko woote ay at yu bare bare bare ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul soxna Astou sa doom moo ñëw sa géwél moo ñëw ci yow tey waaye sa soppe sa wëlëre sa am di jàmm moo dikk ci yow kan moo dikk ci yow xaadim ngay sopp nabbi mu jóge ba Touba Selem ànd ak ku mu am ànd ak magam yu góor yeeg yu jigéen yi ak mag magi xaadim ji di taawub ndeyam moo may yëkkatilu ay kàddu nee na mi ngi lay seeral ni xaadim rakk la juy toppe gox bi nga xamante ni fa la dëkk muy lansaar mbootaay yëfu dëkk ñëpp a ngi ci ginnaaw xaadim lu xaadimam yëpp ko ci jàkke yi lam social la ci koñ ba mu dëkk loolu nag war naa mën a nekk ndax yow ku xam sa maam sëñ Modou Moustapha ndim daan defaree nit boo defaree xaadim yi doo ko ko gis bëgg a jaxasoo ak moom wërta bett kenn xaadim li dafa mel ni li mu gën a jële ci soxla si mooy social xaadim mënut a dégg kuy jàmbat su ko xasee dégg rek léppam fàtt na ay dëkkam jëppiwuñ ko ay bokkam jëppiwuñ ko foofu la ñuy tënk sunu kàddu di yóbbaale mboolem jànk ci xasida yi ñu àndal yëpp itam mais moom amu ci kàddu mais liñ ko waxal doy na mais soxna Ndey moo ko léppal ci soxna Astou ba jotaay bi mën a am kon ne yaa Ndey ci mën a sànni ci kàddu rek yaa daal ne sant na baax xaarim mais lu baax rek la bëgg tey lu baax nga bëgg mais soxna Astou mooy moom soxna Astou moom ne li nga def moom nga ko defal yaa nday ne kontaan na mi ngi lay ñaan moom ñaan la am mi ngi lay ñaan yàlla sa diggante soxna nay foo ko bëgg a àggale yàlla na nga ko fa àggale te ne yoon wi kon jërëjëf sëñ Xaadim yow daal jàppal soxna ba soxna Astou sa yéene ci moom yàlla na nga ko àggale sa yaay ngi nii yónnee na may kàddu ne sant na bu baax a baax waaw ne mi ngi mi ngi ñaanal soxna Astou Bali ak soxna Ndeye bokk yëpp yaayam léegi nag ñu déglu kàddu yi nga xam ni moo jóge ci soxna si jaar ci sëñ Fallou Galass mu jëm ci sëñ soxna su nag dafa wax ne xaadim moom yàlla dogal ne kii ko booleeg moom su ko boole woon bantit bant bi ku ñëw kër soxna may fekk ko rawatina nag bi ko booleeg nit di doomu aadama muy soxna nday Mbacke te xaadim doon koo xam ne ku neexa a doomoo la suñ borom dimbale ko ci ab yar kenn du ko xaaj yi ci dara ba noppi nag di nitug sutura it nag am na fayda yu toll ne fu soxna as su jógee rek mu topp ci ginnaawam te nëbb ko ku yàlla bind loolee nag soxna as su def koo jël def ko muy doomi boppam yoo xam ne moom it nëbbut ku yàlla bind ne xaadim mi sama doom bu dara xewee ci kër gi boo ñëwee fekk fi xaadim bu fi dara xewut boo ñëwee fekk fi xaadim saalam day ci lay tëdd soxna si ragalu ko seexluwu ko da ko jàppe comme Moustapha Mbacke mii mu jur ndax lan soxna ndey mii ko teg ci loxoom mu am jomit nag lii jom juróom fukki paquet ndox yi képp doy na sëkk tuyaaba ndax wóor na ma ne ñu wooroon doo nga koy naan te ku ci naan mu jot ca tuyaaba ji mu am jom jënd aw nag xam ne bis bii mooy bisu way juróom mu ne ko kenn duma ci man nag wam jëndoon daaw boo xoolee wii ko ëpp fuuf mu ànd ak ay xaritam mbooleem kuy jàng xasida wala ngay sinet wala ngay nekk ci diggante yi di wax ñoom ñëpp ñi ma ci xam gis naa leen kon day mel ne seen digganteek ak moom rafet na kon xaadim sa yaay nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di sant sëñ xaadim siise mii ndax xam naa ci lu moom lu baree baree baree bari te waxee suma ko sëñ Ahmadu it wax na ma ci moom lu bari nit ku yàlla jox taraanga la tam mën a jëf ci ak suuf te kenn du ko xam bari na lu muy def doomu aadama di bëgg a dugg ci mbir mu toggoo coono ba bépp ba na bàyyee la ndam la nëbbu boppam waye jëf ju yàlla gërëm non lay mel seigne Touba neena jëf saa yu ci sam xel jugut yàlla du la ko fay lo jëf ngir yàlla dang koy fàtte te diko neub kon nak ginaaw khadim andi na la ci kër gi soxna su neena na nga jàpp ne def na la dom nim ko defé khadim domo na la ni mu domo xaadim te it du ko neub ku yàlla bind dana won na la jàpp na la ndax khadim mi la fi andi cër bi mu am ci kër gi comme moo ko yaay téyel ma kii danaa téye kooku kon nag soo xam su nee ne jàpp na la téye na la di ñaan nag yàlla ci barkeb Serigne Touba lii nga fi jëf ren asaka yi li ngeen di jëf bu déwénee lii ngeen def ren nay asaka li ngeen def bu déwénee soxna si mu ne lii nag moo ko terale ñi nga àndal jërë ngeen jëf soxna si soxna si nee na xolam sedd na yàlla yàlla bàyyil la xaadim bàyyi la fi ba lépp luy teraanga mu mën la koo defal ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf xolam sedd na guy ñu taalal mu ñaan bu noppee ñu dem xool nag wa topp ci man ñu bokk ndey ak baay yàlla dogal ba muy xale ba dëgg di féeteeg man lool la yàlla dogal mu bëgg ma yëg ma yërëm ma yërëm sama njaboot am sama yitte may ma jàmm lool nag waaye dafay ñëw dañu nemmee ko bëgguñu lu ma am indil ko ceeb mu indi suukar mu indi xaalis mu indi boole ci di ñëw ci kër ga dañu seet yàlla jàmmam yàgg yàlla na yaa ko yàlla bàyyi ak soxna su nag ak mboole mu jullit nag maa ngi ñaan mu dund ba demaak waaye lékku dara ma ma as soxna su dama na ko jàkk ko xaadim mooy sam caat may naa la ko àddina may la ko mhm. moo soxna ngay mbàkk xoolu ma gis ma dégg yomal xiyaar sax mën naa boo bañ a laaj nga xam naa ne mu koy dugal àddina direct may ñaanal ci kàttanu soxna Astou ak Serigne Touba. may ñaan ñaanal ma rek sama bët yi wér ba ma yéene ci xaadim ma def ko ak magam. maa ngi naan xoolal ñu ne nga maamu fayam. dëgg ma fayam ndax bu dencoon tey jii ak junni. ay ay ay ay soppeeku ñëw nañu. ba ma dalee ma laal xam nga ba xale bu tuuti la. di ko wax rek. bu ma waxee man ma yaay mën na yóbboon fenn ko yàlla def suba ma dara. ndeysaan def na ko képp ku may ñaanal ma ñaanal sama njaboot bu góor gi ak sama jigéen bi sama goro yi ma toog ci ñoom ba màggat ba xut bi daal ñi ca kër ga. ñetti Njaay ak ñi ma àndal yëpp nag ñi ma àndal ak man damaa wut seen ndax bay boo ma ne ma jóge Màkka ma dama war a fekk ma fekk dëgg la baax da nga ñaanal yàlla may leen sama dëkk doy seen fan gudd bële ba ma ko maram jaaj ñu ko ah dëgg la de dama ko dénk te la ko dénk lépp ma ah bis bi rëy na de xanaa santaat rek seen la damay santaat rek. ndax dañoo koo xamante si ne bu la yàlla booleeg moom. non buy dem sama yaay. fu mu jëm ànd ak yow. fu mu am boole la ak moom. foo yegg moom la. da ñaan yàlla sunu borom yàlla bàyyee la ak moom. dëgg la soxna su nag. yàlla bu saytaane am sama digganteeg moom yoon. sa doom bu baax ji Xaadim Gueye sopp na bi lu mu da koo nee na yow rek la mais léppam yow la soxna Astou nee na xam na ne bis bii nga am muy Laylatul tax mu ñëw ànd ko ay xaritam ak ay dëkkandoom jóge leen saar ñëw nag ne addiyaama ni muy nagu na ko bu déwénee fa tabaarakallaahu di santaat yàlla bu baax man xaadim sopp na bi doomi soxna su Mbàkke mu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di am mbégte bu baax it si laylatul xadar gi nii mu doxee nga xam ne dañuy wax ne soxna Astou Gaynde Fatma ku yokkul rek yaa wàññi liggéey bi ko maamam bàyyee way juróom ba bàyyee ko yàlla na ko yeggale si daraje yonent bi ñun nag bu nu gisee at mu jot ñu jëme jël suñuy àddee sunu ñaq jëmale ko si bis bi day bisub lislaam di bis bopp kenn du si def saw ñaq mukk di ko réccu ñun biñ si tàmbalee def sunu ñaq ak léegi xam na nu bu baax fa mu yóbbu xam nañu bu baax it fa nu soxna su jëme waaye lépp nu di koy sant sunu yaay ji nga xam ne moo nu teete boot nu roggante nu ba teg nu si loxoy soxna su gaynde Fatma muy sona Ndey Mbàkke di Sëriñ Fallou Sidiye waaye soxna ndey si soxna may Seydina Ousmane maam Thierno di koo xam ne ak mbaaxam ak yaatam ak yaatalam moo tax lii lépp mën a am ndax lu nu defal soxna su rek ah, jëmmi boppam la ko defal te noonu la nu amee yéene defale ko si bépp bis bu mu xewle waaye bépp bis bu dal si kawam ndax moo nu joxoñ soxna su teete nu jàppale ba tey ji lii lépp mën a am Sana sunak teenu teewin wo xamne ah motax bu bis bu jotee rek bu nu doon man di milaas sunu bop de ko ci def dañ koy bëgg ndax ñun lool lañ doon ne sunuy imam doon ne ko wayjur muy fasiyene di def lu baax di wax lu baax yar ci teggin lool la la la la nu kon ñun lool rek mo nu war loolu rek la ñuy bëgg di ñaanit yàlla bàyyeenu ak moom bu baax ndax soxna sukkat ku ko am muy sa kilifa di sa wayjur dangay ñaan yàlla yàlla bàyyee la ak moom seytaane bañ a am seen diggante aw yoon yàlla bu mu ko am ci barkeb soxna bintu xaadim rasul di ñaanal bu baax mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi mboolem kilifa yi waaye di ñaanal bu baax sunu waa gox bi nga xam ne ñoom la and ak ñom ku leen gis ni xamne taxaw nañu ci bis bi japp nañu ci bis bi gunge nan ma wéttali nañ ma serigne kharim siise mi nga xamne mom la andal ak serigne Cheikh serigne baralo Lo ñoom ñëpp leen fàtte ben yon ak sunu kilifay bop di ñaan yalla guddal seeni fante te wéral leen ci wéral seeni cër waye lama ci gëna nak muy sama yaay di sama yaay xol yónnee fi teranga jo xamne ku gis teraanga ja xamne ne deug deug deug deug deug deug deug dëgg la muy soxna Mominatou kebe umul fuqraa soxna Mominatou kebe bintu alhaji Njugo kebe soxna momi ku gis yekam wi ak teranga yëkk ya jitu ah ne soxna moomi lu mu daan def si guddik laylatul xaddar diko def soxna Maymunatu munut ko def soxna bali da yok yokk soxna sugay ndafam waye wañi wàññiwoo damay ñaan nak digëntem ak soxna sugay ndafam yàlla dolle len laq fi yàq yëggul dañuy ñaan ci barke touba dal daal momi tara nga ji nga def ci laylatul xaddar yalla na ko yàgg man yàlla ko yàgg man nga bëgg nga lu bax téye nga soxna assu japp nga ko sota dir nga ko taw nga ko ci bop fànn kon ñoo ngi ñaan ci barke seigne touba yalla la yalla baye ak mom nonu nga ko defee noonu la ko soxna bali di soxna bali Soyibu ajaratu ya ndey bu so non la koy defee ak mbolam njabootuk serigne Touba gi non ndey fallo sije ku gis barki dem ba jeelal na so non ndey fallo sije way yaayam ju bax gi nga xamne muy soxna May Ousmane barki dem ba leg jaabante gi ñuy so non ñom mam jaar sar ak sunu yaay ji soxna Maodo Touré ak mbolam ñi nga xamne ci ne si kër gi lañu yaro yaroo keppaar gii la ñu loxoy soxna May mënatu te ba ginnaw soxna su gaynde fam di tok di wetli ñoo ngi ñaan si barke Serigne Touba yal na leen soxna may doole fay yàlla bàyyee leen ak soxna su ngeen dafa am ba ngeen ànd liggéey soxna may bii ngeen jëmee ko fa ngeen ko bëgg a jëmee si barke Serigne Touba sama xol sedd na sama xel dal na yàlla na ma yàlla bàyyi man daal xaadim sopp na bi ku may ñaanal ñaanal ma rek yàlla bàyyee ma ak sama yaay ji soxna su Mbàkke Serigne Cheikh Gaynde Fatma